am ne def na ko ci bitim réew ay concert ak yu si ajo daan nay wax tamit jaar-jaaram nee na benn bis jóge nañu Sénégal def tournée ca diwaanu Paris la France mu daal di fay def ab concours at mi concours boobee nekk France continué fa am njàngam waaye nag boole ci di liggéey ci université de Picardie wax na projet bi nga xam ne moom la amee jamono ji tuddee ko sunu démb ak tey yéen a gi di source wax na ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal caution bi démb opposition beeg pouvoir bi ak non aligné yi dajee woon nañ ministre bi ñu dénk intérieur di waxtaan ci lu soxal caution bi waaye nag déggoo Moussa ndax opposition bi juróomi million la wax bu dee nag bi fukki million ak juróom yéen a gi du l'observateur nee na jamono Antoine Diome ministre de l'intérieur yor cëggul ku yam mooy décider enquête yéen a kaay waxtaanu tëx a dëgg kay bu ñu koy wër bay moo ñu dem te jàngalekat ya ak gouvernement bi démb waxtaan nañ waaye nag ba léegi déggoo la am na juróomi syndicat yoo xam ne d'accord nañu waaye nag CUSEMS ak waa SAEMS ñoom nee nañu base ba la dem yéen a ñu génn ca ville bu Pikine mooy waa wàllu Sénégal démb amal nañu mars opposition bi nee nañu hold bi nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar bëgg def ci ville bu Pikine loole mënuñu ko nangoo Cheikh Dieng nee na danañu dem scobu yéen a kaay du sursa nee na lu jëm ci wàllum njëg yi nga xam ne Macky Sall nee na wàññi na ko ceeb beeg diwlin déeg suukar si amul lenn loo xamante ni wàññeeku na si commerçant yi jamono ci dañoo lànk ba tëdd sa naaj nee na leen ci ñu ne ko lu tax nee na yeneen région yi bu ñu bëggee jëlee marchandise mi Dakar commerçant yi dañu koy transporter yóbbu ko ci yeneen région yi foofee mënuñu leen wàññi ministre bi mooy wax nee na gi daal na leen leer ne yéen ñi nga xam ne nekku leen moom bokku leen ci ñi nekk Dakaaru rek la concerné yéen a kaay gi du xëy duñu xibaar naan ñu ca diwaanu Ukraine foofe nag bëri nay yoo xam ne jamono ji li ñuy gis ci ay yéen a kaay gi di Les Échos di wuyoo ci turu Ibrahima Badiana nee na jamono ji nekkatuñu ci sécurité gars yi jamono ji kenn ku nekk mooy xool fan ngay dugal sa bopp am na ñuy daw wuti Pologne yéen a kaay gi di bés bi nee na yi nga xam ne moom la ñu waxoon ne moom la ñu jox gaynde yi ca diwaanu Ngoro jamono ji coow li nee na si coobee te mbir mi demagul fenn ndax ñi nga xam ne ñooy ndawi lébu yi démb génn nañ ci mbedd mi tàngal mbedd mi ba mbedd mi tàng jër yéen a kaay gi di am na ñaari jigéen ñoo xam ne teg nañu leen loxo ci trafic faux billets bi ñu ko xaymaa ñaari milliards la yéen a kaay gi di L'Info nee na lu jëm ci wàllum trafic drogue bi ñi